wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin ñoo ngi leen di nuyu baax di leen ziyaara fas yéene dikk ak yéen ci seen waxtaan bi ñu leen baaxoo defal mu aju ci tarbiyatul islaam altine bu jot incha allahu taala suñu waxtaanu tey ñu ngi ko jëmale ci ñooñ ñuy tuddee góoru ñaari tubéy te mu nekk jëf joo xam ni ju xaraam la suñ borom tabaaraka wa ko ci alquran yonent bi xaraamal ko mboolem jullit yu baax yépp itam xaraamal ko muy jëfi képp koo xam ne danga ngaa génn ak top ba tax na képp koo xam ne yaa ngi koy def mbaa yaa ngi koy digle mbaa nga ànd ak koy def jullit yi leen war moo ci boppam ñu won leen ginnaaw te bu ñu demee ba ci kanam daañu gis ni képp koo xam ne yaa ngi jëf-jëf jooju mbaa nga koy santaane mbaa nga ànd ak ña koy jëf euh, yow mi nga xam ne doonte defoo ko da ànd ak ñoom euh, la cay topp incha allah daañ ci agsi léegi bu ñu demee ci alquran ci suratul araf daañu gis ni borom bi tabaraka mi ngi tudd ab yonant boo xamee ni ña nga xamee ni dañ leen yónni woon te ñoom loolu lañ doon jëfandikoo muy lóot ñu yónni ko ci ahlu sadoom ku ñu wax aaraan ci boppam moo ko jur bokk ak ibrahima alayhi salaam benn baay azar ci boppam di seen baay loot moom nag bi nga xamee ni yonte yàlla ibrahima sax borom yebal na ko dafa gàddaay ànd ak moom suñu borom def ko mu ab yonant mu yónni ngir xeet li ay nitam ci tere leen jëf ju bon jooju nga xamee ni dañ ko doon jëf moom laa la alquran di wax ci suratul araaf wa luutan id qaala li qawmihi ataatuuna alfaxishata ma sabaxakum biha min ahadin min alaalamin mu ni ay nita moom loot eh, ndax da ngeen di def ñaaw téef mbaa jëf ju bon joo xam ne kenn mësu koo jëf ci doomu aadama ba ne yi li ñuy bari bari bari nit yi loot ña ñoo ci jëkk a def loola waaye bu jëkk daal nañ mooy yàlla ci yenn xeeti mooy yàlla waaye jëf joo xam ni bàyyi ma sax du ko def nit a ko jëkk a def te nit kooka moo di nit ña nga xamee ni euh, moo di nit yont yàlla loot borom bi subhaanahu ci boppam tere leen ko ni leen innakum la taatuuna rijaala shahwatan min duni nisa bal antum xamum musrifun yéen daal yéen ngi wut seen bànneex ci ànd ak góor ñi bàyyi fi jigéen ñi yéen ay nit ngeen ñoo xam ne ngeen di yàq ndax yéen a ngi ji jiw woo xam ne du sax kon jiw woo xam ne suñu borom dala ko may ci kàttanam nga war caa am ak njaboot war caa am ay doom ngeen koy ji foo xam ne du sax loolu ak yàq la te xam ngeen ni suñu borom diglewul yàq te tere na ñi nga xamee ne dañ koy def te sax nee na ñi nga xam ne yàq ñi ëllëg ñoo di waa safaan ba wal iyaasu billahi nga xam ne seen caay caay eggoon na ci dëddu jigéen ñi jëm ca góor ña bu ñu di kewent yàlla loot daf leen wax leen daf leen a wax ni leen haulaay banaati in kuntum faailin waaye samay doom a ngi nii ñu ne ab yonant du caaginug jigéen ñëpp ñoo ay doomam waaye ni nga xamee ne yonant bi alayhi salaatu am noonu la nekkee baayu xeet wi kon jigéen dafa nekkan dafa taxaw ci ñoom taxawaayu baay ndax yonantu am na sañ-sañ maye doomi nit ci ndigalu suñu borom tabaraka wa taala kon muy mu xamal leen ni leen ñii kat samay doom lañu waaye ana lañ ko lan lañ ko tontu xaalu laqad alimta maa naa fi banaatika min xaqin wa innaka la taalamu ma nurid yow kat yaa gën a xam ni amuñu soxla ci sa doom yii xam nga liñu bëgg ñun góor ñi boppam lañ bëgg am xam ni ku koy def ku nekk da ngay ñàkk kersa da ngay euh, nekk nit koo xam ni faaliwuloo kenn waaye borom bi mere na la ñu baax ñu ci boppam mere la ku bëgg dara ci yàlla itam dana la woon ginnaaw ñu ngi ñaanal Cheikh Mamadul Muntaxa yal na ko yàlla doole kattanal dëgëral ko te wéral ko kon lii nga xamee ni muy projet de loi boo xam ne dañoo war a raye wàllu góor jigéen ci senegal moom ak mboolem ñi nga xam ne ay kilifay diine lañu te ànd ko ak moom képp ku ab képp ku di ab julli te wax ashhadu an laa ilaaha illallah da nga caa war ànd ak ñoom jamono boo xamee ni won nga leen ginnaaw ci jëf jooju nga xam ne moom la ñu bëgg kon yow sax jullit moom des na te mun naa ni sax da ngaa yàlla ndax weddi yàlla du dara lu may sans borom ni lii araam la nga ne araamul ba noppi nag dëgër nag kon yaa ngi dàggasante ak suñu borom tabaaraka wa taala loolu nag dafa am jural nit ki. li muy jural nit ki li mën a jural nit ki bokk na ci ak dëgër bopp ak dëgërante ak sa boroom tabaraka wa taala waaye ñi nga xam ni defaan nañ ko de lam leen jural alxuraan dana ko wax ndax ba nga xamee ni noox ci boppam tere na leen loola ñoom dañoo bañ anal luñ ko tontu wa ma kaana jawaaba qawmihi illa an xaalu axrijuhum min qaryatikum innahum unaasun yatataharuun ñu ni daal léegi seen tontu daal mooy loot mii da ko génne génne leen ko waaw génne leen ko moom ak ay nitam ak képp koo xam ne dafa ànd ak moom ndekete ñoom ci boppam ñooy génn borom bi tabaraka wa taala daal di digal nag euh, loot mu daal di génn ak ay doomam ak ña ko gëm ba mu des nag soxnaam soxna sa moom dafa bon ànd ak ñoom moo tax ba nga xamee ni ci boppam mbugal ma dikk na bàyyi ko fa waaw bàyyi ko fa waaye ña nga xamee ni nag ñoom dañoo dëgëran bopp ah ñii kii daal dafay wax rek dafa dikk bëgg ñoo génn ci li nga xam ni suñu jëf la mbaa suñu jikko la suñ borom nee na fa anjaynaahu wa ahlahu illaa imra'atahu kaanat min al nee na mu musal ko moom ak uh, ay doomam ak ña ko gëm waaye ba mu des nag ca uh, soxna sa soxna sax moom dafa ànd ak ña nga xamee ni way bon lañu way weddi uh, loot dañu ca la nga xam ni moom la leen doon digal te doon leen tere tam moo tax ba mbugal ma dikkee ñoom ci boppam ñoo ko bokk moo tax képp koo xam ne yaa koy daganal mbaa nga gëm koon na ngay séentu euh, mbugal moo xam ne dana wàcc ci sa kaw muy wopp joo xam ne kenn du ko mën a faj te la ci yéeme mooy boo faatoo moom da ngay dem sawara yàlla nañ ci yàlla suñu borom tabaraka wa taala musal ndax borom bi moo ko wax kon ku la ni nekkul ci alxuraan xamul yàlla mbaa déggul alxuraan mbaa xamul lu wér te kooka seytaane la ku man di doon dañ ko war a woon ginnaaw ku ni alxuraan terewu ko rek dañ laa war a woon ginnaaw ndax yow naa feq nga te da ngaa murtat weddi nga génn nga ci lislaam alxuraan képp ku ko weddi rek benn alif képp soo ne nekkul ci alxuraan te fekk mi ngi ci alxuraan yow dañ la war a jàppee koo xam ni dafay murtat alxuraan nee na li nga xam ni moom laa mujj wàcce ko ci seen kaw nee na wa amtarna alayhi mataran fanzur kayfa kaana aqibatul mujrimin nee na dama wàcce ci ñoom taw boo xam ni taw ay xeer la yoo xam ni ma nga jóge ca masalan euh, euh, sijjiil sijjiin yal nañ ci borom bi subhanahu wa taala ci boppam musal waaw moo tax alquran ni fa axrajna man kaana fiha min al muminin fa waa wajadna fiha gayra bayti min al muslimin nga xam ni ña ko dëggalan ngóor jigéen ga dañoo bari wal ñu néew genn kër képp te moo di lóot ak ñu ànd ak moom ñoom képp ci boppam ñoo gëman waxi suñu boroom ñoo gëman topp yonant bi alayhi salaatu wasalaam loolu nag yéemewul ba léegi suñu boroom nee na li ëpp ci ci boppam duñu ñu gëm li ëpp ci nit ñi ci boppam du ñu euh, nekk koo xam ni kuy topp ndigali borom bi subhanahu wa suñ euh, suñu borom tabaraka wa taala nee na wa amtarna alayhim xijarata min sijil mandurin musawamatan inda rabbika wa ma hiya min addalimina bi baid mhm. nee ma wàcce ab taw ci seen kaw waaw taw boo xamee ni ay xeer la yal na ci suñu borom tabaraka wa musal maanaa mu nekk mbugal mu tara tar mu metti moo xam ni kenn mënu koo njooy ndax suñu borom kat lu mu namm ci ab jaam kenn mënu ca dara soo ca bëggee mucc rek bay boo nga daw làqatu ci jëfe ndigali borom bi bàyyi ay tëleem moo tax suñu borom tabaraka wa taala di wax ak bi mu ne ko untur yaa muhammad kayfa kaana aqibatu man yajtari ala maasillah xoolal yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi nga xam ne dañuy mooy yàlla ba noppi ànd aku fit ci ñeme seen abu anifata radiallahu anhu dafay wax ni ñi nga xamee ni ay lawaid lañu ay góor jigéen lañu mbaa ñu nangu ñu def leen ko nee na ñoom dañ leen a war a yéegale foo xam ne fu la sànni leen ci boppam ay xeer waaw sànni leen ay xeer ba ñu waaw leen ci boroom xam yi ni bu fekkee dañoo sàngewu dañ leen a wara a jam raj mu leen bu fekkee nag amuñu soxna dañ leen a war a dóor téeméeri yar bu demee ci hadisu yonant bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci abdullah ibnu abbas mu wax ni qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man wajadtumuhu yaamalu amala qawmi luutin faqtuluhu faqtulu alfaila walmafuula bi abdullah ibnu abbas nee na yonant bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jamono bu ngeen fekkee nit koo xam ne dafay jëf jëf xam ni nit yi yont yàlla luut moom lañ doon jëf ka nga xamee ni moo koy def ak kañ koy def kay ànd ak góor jigéen nga ak góor jigéen nga ñu àndal nee na ñoom ñëpp ci boppam nañu leen euh, nañ leen nañ nañ nañ nañ leen nañ leen rey nañu rey ka koy def ak ka nga xam ne boppam moom lañ koy def kon nga xam ne loolu lu naqari yonent bi la waaye lu naqari yàlla ab jullit nag lépp lu naqari yàlla daf ko war a naqari lépp lu naqari yonent bi alayhi salaam ci boppam daf ko war a naqari waaye ni ab jullit laa waaye fekk loo xam ne yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu ko ragal mbindeef képp ne yow tax nga ànd ak moom ci loola mbaa bëgg àdduna di nga ko di nga ko réccu yonent bi sallallahu alayhi nee na da ngeen dem ba ay jamono yahud ak nasaraan yi boppam daañu leen not ñu ne ko yaara yaa rasulullaay xanaa booba mbooloo mu néew ci boppam moo koy waral mu leen déedéet booba sax ngeen di ëpp mbooloo waaw booba ngeen di gën a bari yéen julit yi ñu tudd ay jullit ñu ne ko sool rasulullaay lan moo koy waral mu leen ñaari mbir képp moo koy waral mooy ragal dee ak bëgg àdduna kii bu fekkee boo ko waxee dëgg mu xañ la sa àdduna mbaa mu rey la nga ne ci boppam ah man kat ndàngam ci moom duma ko wax ndax damay xañ sama solde mbaa damay xañ sama wërsëg mbaa damay xañ sama àdduna bu la xañee àdduna it te mënu laa xañ àdduna lu may du dafa neex suñu boroom yàlla dina la may lu gën àdduna te moo di wala laaxiratu xayrun alaaxira ci boppam moo gën àdduna ab jullit wërta ragal dee wërta ragal ñàkk leen képp la war a ragal moo di tooñ suñu borom subhanahu wa taala ak yóbbaale li nga xamee ni moo di ay bakkaar ak ñaawteef sëñ Tuubaa dafay wax ne ko shaqu yu jiddan man xaraj min aali dunya bi dan minu xaraj nee na ki alku dëgg mooy ki nga xam ne bi muy dee yóbbaale ay bakkaar bakkaarum nag lii la yàlla santaane nga bañ bañ koo def lànk kandaare ah boobu bakkaar moom yal nañ ci suñu borom tabaaraka wa taala musal waaw ndax ab julit yàlla ci boppam moo ko moom jaamu bi yàlla la waaye nag bi nangu mooy bi jaay yàlla bakkanam ak alalam inna allaha ishtara minal mu'minina eh, amwaalahum wa anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul jannata yuqaatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yaqtuluuna wa'dan alayhi haqqan fi tawrati wal injil jullit bi dafa jaay boppam yàlla bi mu jaay boppam yàlla nag bu fekkee alalam laaj na ko da ko koo war a jox bu ko bakkanam laaj ji boppam daf ko war a jox ni saaba yi nga xam ne doon àndan ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla gën a leen seen bopp yàlla gën a leen seen lépp bu yonent bi diglee dañuy def bu teree dañuy bàyyi ndax annabi awla bil muminina min anfusihim yonent bi moom la nit ñi war a gën a bëgg ci boppam seen bakkan moom lañu war a gën a bëgg seen bopp kon nag ñi nga xamee ne tam ay taalibe murid lañu dañoo jaayante ak yàlla seen borom subhanahu wa jaayante ak sëriñ Touba mu Mountakha ci boppam moo ko fi nekkal lépp lu mu bëgg loolu lañ war a bëgg lépp lu mu jublu dañ ko war a jublu waaye lépp lu mu won ginnaaw rek loola ci boppam war nañ ko won ginnaaw donte dañ ci jox ay milliards donte dañu ciy defal lu mën di doon ndax at àdduna lu mu yaatu yaatu ci yow ak lu mu bari bari ci yow ak loo ko gërëm gërëm bis na ñëw ci boppam mu mel ni ci boppam musta nekk ndax dee ci boppam ala kulli xaalin day dikk loo ko daw daw kon nag ragal dee motu ko li mata ragal mooy nit ki ay bakkaaram ak i ñaawteefam ak mooy suñ mooy suñ borom ndax qul inal mawta allati tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum summa turadduuna ila aalimi alxaybi wa shahaada de bi nga xam ni yéen a ngi koy daw di ngeen daj ak moom ñu delloo leen ci seen borom subhaanahu wa bu ko defee nag mu laaj leen di nga xamee ni moom ngeen doon nekk ci àdduna bu ndemee ci alxuraan ñu gis ni képp koo xam ne yaa ngi def jëf jooju musiba mën na laa dal te tax du yàgg yont yàlla Shuayb alayhi salaam bi nga xam dañ ko yónni ci ay nitam ñu mooy ko dafa am lum leen wax ni mooy gii ngeen di def kat am na ay yonantu yoo xam ni ñooma jiitoon waaye seeni nit ba ñu leen moyee yàlla ànd ñoom am na lu mu jëflante ak ñoom moom la alquran di wax ni ci suuratu Huud yonte yàlla Shuaybu ni wa yaa qawmi laa yajrimannakum shiqaaqiya an yusibakum misla ma ataaba qawma nuuxin aw qawma huudin aw qawma saalihin wa maa qawma luutin minkum bi baid yéen samay nit ñàkk ànd ak man bu mu leen jaral mbaa bu mu leen yóbbe la jotoon nit yont yàlla noox xam ngeen noox yàlla daf ko merle woon ba defoon àdduna bépp muy am ndox ndax mooy gun doon mooy yàlla suñu borom noonu rabbi laa tatar alal ardi mina kafiran dayyaaran innaka in tatarhum yudillu ibadaka wala yadu ila fajira te noo dafa mer rek ne suñu borom lu bàyyi benn yéefar ci kaw ñëpp nañ alko doomam bokk ca soxnaam bokk ca nga xam ne kon ànd ak ku baax te baaxoo amul njariñ te bu mu mbugal ma dikkee sax yow yaa ciy gën a méttale waaw ndax na nga tàmman bànneexu ànd ak waaju baax mu ne kon yont yàlla noox dañu dañoo alak ay nitam yont yàlla xóot sooy bu ni leen dañoo alak ay nitam yont yàlla saalih ñoo reyen gëléem nga suñu borom tabaaraka wa taala dafa wëlbati suuf ci seen kaw waaw ba ñu reyee gëléem nga daal koy loj borom bi tabaaraka wa taala suuf ci seen kaw yont yàlla noox dañ leen a yëkkati ba ca kaw ñu këpp suuf ci seen kaw ba tey ji ñu ngi ci mbugal wal iyaasu kon nag dara waralu ko lu may fekk waa ju baax rek ñu weddi ay waxam ak leen ñu bañ a def kon képp koo xamee ni nit ku baax dafa dikk ni la lii la yàlla bëgg nga bañ koo def bu ëllëgeet na nga xam ni am na mbugal boo xam ne mi ngi lay waaj te soo wàccul yoon wa nga xam ne fa la mbugal nekk di nga dajeeg moom mbaa dina la dab loolu nag dara andiwu ko fi lu may yahud di ak nasaraan yi ak ñi nga xam ne dañ leen di topp ndax képp koo xam ne danga ngaa nuru ay nit rek ca nga bokk moo tax sëñ Tuubaa doon wax ni euh, Eh, jeng jëm ci yowoot ak nasaraan de eh, musiba kepp lay jural nit ki jeng googu nag moo di jéem a yor seen jikko ak seen melokaan ak bëgg a àtte bu ci seenu àtte te seenu àtte borom bi tabaaraka wa ci boppam gërëmu ko suñu borom wax na ci alxuraan yaa ayyuha lazina amanu in tutiu fariqan min alladina utul kitaaba yaruddukum baada imanikum kafirin yéen ñi nga xamee ni dangeen ngeen a gëm yàlla bu ngeen toppee ab kuréel ci nga xam dañu leen joxoon téere te mooy yahud ak nasaraan daañu leen génne ci seen diine waaw waaye loolu euh, ab laaj dafa nekk jullit bi naka lay amee ku mel ni yonent yàlla Muhammad am alxuraan alxuraan boo ko doon seetantal te jëf ay ndigalam kenn du nu mën a jengloo kenn du nu mën a jëmale ci loo xam ne suñu borom tabaaraka wa taala ci boppam gërëmu ko Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne kenn mënut a dox digganteem ak yàlla. te ànd naag tubaab yi ay at yu bari bari ci mun ñu koo tax a jeng dara moy ko li mu am lu may jàpp ci alxuraan mu ne masaktu bil kitaab bi maska dariri bi yadil qaa'id basir ni jàpp naa ci alxuraan li nga xamee ni silmaxa noonu lay euh, jàppee ci tuumum njaacaar li nga xam ne moo koy wommat kon mel na ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo di ki nga xamee ni moo di njaacaar li alxuraan di tumbi sëñ Tuubaa ci boppam jàpp ci daal di nag képp koo xam ni jàpp nga ci alxuraan di nga mucc tey di nga mucc ëllëg alquran di wax ne wa kayfa takfuruuna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim suñ borom tabaraka wa taala ni naka ngeen di weddee di topp yëwul ak nasaraan ak ñi nga xam ne dañuy euh, euh, tubaab tubaab lu ci sëñ tubaab ne walaw ta nasaratu la daxaltu naar nee man mi képp su ma bëggoon ab tubaab jéng jëm ci ñoom ba ma tubaab tubaab dinaa dem safaan ba wal iyaasu billahi ak lim liggéeyal boromam lépp kon waxi kaneen waxi noppi waaw borom bi tabaraka wa kon naka ngeen di weddee te yéen ñuy jàngat yéen alxuraan xanaa soo jàngul alxuraan itam di nga dégg ku jàng alxuraan di la ko leeral ni lii la yàlla bëgg lii la yàlla bañ kon nit ki du amulay man damaa jàngul alxuraan ba dama amul xam-xam ndax bés bu nekk boroom xam-xam yaa ngi wax sëriñ su baax rek ci boppam ñu ngi wax kon képp koo xam ne jeng nga jëm ci ñoom bu ëllëgee kat doo am aw lay moo tax suñu borom di wax ni bu ëllëgee di nga gis koo xam ne day ñëw buntu sawara ñu ne ko alam yaarikum nadir xaaloo bala xad xaaloo bala xad jaana nadir fa kadam naa wa kunna man adalla min shay xanaa yéen amu leen wan ku leen doon waar naa lii la yàlla bëgg naa lii la yàlla bañ ñu ne ah kay waaye dañu foog ne ah, dañoo ñu daal dañoo weddi wan ay waxam ni daal mbirum ci boppam demee wu noonu si ne bari na ñoo xam ni gëmuñu ni maanaam bis penc dana am gëmuñu ni bu demee ci bàmmeel ci boppam daañu dekk loolu nag yal nañ ci yàlla busal kon nañu góorgóorlu jàppaat suñu diine amuñu lu dul diine eh, lépp lu waay am ci àdduna as ndiir képp ngay am ak moom mu eh, mu jeex. ëllëg nag kër la goo xam dootu jeex ba mukk boo fa yóbbu boo aw yiw dëkk aljana bànneex bu dul jeex la ku fa yóbbu nag musiba ak bàkkaar ak wedd yàlla mbugal ngay sax moo xam ne amatu fu mu yem te tubaab yi li nga xam ne moom la ñu bëgg moo di génn ñu ci suñu diine wedd yonante bi alayhi salaatu wasalaam ak ñi leen fi nekkal ci alquran wax na ko wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yaruddukum an diinikum in istataau wa man yartadid minkum an diinihi fa yamut wa huwa kaafirun fa ulaa'ika xabitat a'maaluhum fi dunya wal axira wa ulaika asxaabu naari hum fiha doon nee na duñu bañ ñu dañ di leen xeex ba génn leen ci seen diine suñ ko manee bés bu nekk ñu ngi leen di propagandal ay propagande yoo xam ni kat doo dara lu may bëgg leen génn ci seen diine rek waaye képp koo xam ne topp nga tubaab yi ak yahud yi ba génn ci sa diine suñu borom nee na nga dee ca loola nee na kon yow ku weddi yàlla nga ci sa jëf ci boppam sippeeku na ci àdduna ci nee na dinaa la boole ci ñi nga xam ne ñooy biir sa war a wal iyaasu billaahi kon ab jullit nay waalu ci delluwaat ci yàlla te góor góorlu te mooy ci sunu kilifa yu baax yi mooy ci alquran mooy ci digali yonent bi alayhi salaatu salaam ku ko jàpp ñu jàppala la ku ko woon ginnaaw ñu woon la ginnaaw waaw loolu daal mooy melokaan yi nga xam ni moo rafet rafet ci ab jullit suñu borom da noonu ittabiul mursalina ittabiu man la yasalukum ajran muhtadun topp leen yonent yi topp leen koo xamee ni topp ga nga xam ni eh, ci ngeen koy topp laaju leen ci ak pay laaju leen ci dara lu may moom tuyaaba képp lay wut ci kon ku ni fii la te muy dëgg fab tànkam teg ko ci fa yonent bi saa tam tegan tànkam nañ ànd ak moom ku ko deful ku nekk ñu war la ginnaaw te yàlla defal tawféex defal ñu taysiir defal ñu ndimbalum àdduna ak mu alaaxira aaral ñu boppam sangeel ñu boppam ba seytaane ak kuréelu saytaane du man ci ñun dara euh, euh, ki loon doon defal waxtaan wi seen bokk Ibrahima Khalil Niang Eh, di sàkku ci yéen ñaan di leen ñaanal jàmm ndax inna allaha wa razaqu zul quwwatil matin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulillahi alkarim silmilan alastighali bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساهني لوتني به نفى ما أنفني